ñoom Anta Dieye ñoom Daba Ndiaye Koumba Ba Ami Ndiaye Basirou Gueye xale yi nag ma ci nuyu Mohamed sama xarit Mohamed Gueye maam Anta Gueye ak Mohamed Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte ak contentement Pierre da Silva nuyu nañ bu baax madame la ministre Amsatou Sow Sidibé borom calebasse d'or de la paix yal na ko yàlla defal jàmm Adja Maguette Ndiaye ca Banjul bu Thierno Abdourahmane Bari ca Banjul Adja Maguette Ndiaye yal na ko yàlla defal jàmm di nuyu tamit Kiné Wade comédienne euh, euh, euh, bu Guédiawaye ñu ngi leen di nuyu ña am nañu bu baax euh, mbégte ak contentement di nuyu waa Daaru Salaam yëpp Serigne Mouhamadou Bassirou Ndaw ak Moustapha Ndaw ca Daaru Salaam ak Nassirou euh, Diaw nekk ca Daaru Salaam Cheikh Tidiane Ndaw ñu koy nuyu waa Gambie nag ma ci ziar sama papa alaaji Bassirou Touré nekk xalifu Daaru Rilwan ak alaaji Serigne Touré ca Daaru Rilwan ak Maxi Touré Daaru Rilwan waa Daaru Rilwan yëpp ñoom Modou Touré ñu ngi am mbégte ak contentement di la ñaanal fan bu gudd rawatina suñu papa alaaji Bassirou Touré xalil euh, xalif bu Daaru Rilwan nuyu nañ baax delluwaat di feddi coloré suñu papa alaaji Seydou Sow ca zone B Pierre de Silva dañu seeti Ablaye Wade Madické Niang ak ki nga xam ne mooy Dembélé ci wax ji nga xam ne rumeur la mu ngay daw ndax am na journaux yu ko wax ne est-ce que Ablaye Wade ak doom ja amuñu ay jafe-jafe moo tax demul seeti ki nga xam ne moom mooy doom ja ndax ay rumeur la war a dëgg la Ablaye Wade moom mooy tontul boppam ñu seeti góor gi ci biir fi nga xam ne mooy foofu lañuy waxee deuxième palais de la République ñu tuddee ko fan résidence Ablaye Wade ak Madické maa ngi ñëw maa ngi mais goro mais goro vraiment kon mais goro mais goro ma xaaral ma après naa la woo yor naa sa numéro waaw yor naa sa numéro naa la woo. ma dikkee ma dikkee. Aïcha hmm, ana gars yi ñoo ngi ci biir. Dembélé. salaamaaleykum. ana où les militants. naka suba si wàdd. waaw ñoo ngi mhm. leen leen tey nag tey nag yaram bi xaw te neex noonu moo tax be ko bu la ko kii ngeen ko bu yem rek aca waaw dama seddal fan yi dama seddal dëkk boo xam ne mbalit baa ngi dem ba je fottul. yéeme na yéeme na masa. masa masa bi la masa seytaane yi nga xam seytaane yi eh bien ñu ngi commencé yàq sama der naan man nan laa juree sama doom eh bien di xuloog moom nan laa amee nan la mun a amee man ku toll ne maître Ablaye Wade Karim Wade tollagul eh bien foo xam ne papam day wax muy xuloog moom loolu ay yàq der la amul amul amul amul. war na ma ma dikkee démb ci guddi eh bien bi ñuy toog di waxtaan. Mhm. maa naan ko Karim de eh bien bëtu yërmande bi nga xam ne moom la yërëmee baayam eh bien man tamit mu nekk sama doom mu nekk ci ay jafe-jafe mënuma eh sama xol antanul eh, lan la waaw mais bu fekkee ne ni ñuy waxtaan da ngay bàyyi yaa ngi toog ngay bien ngay def yoo looloo looy xool. nga seetal ma notre élément dans la semaine parce que Dembélé il faut ñu delloo ko fële ci Popenguine les gens parlent concentrés comme ça il fait les petits malais derrière soo gisee eh bien may wax li nga xam ne eh bien moom laa leen di wax mënuma jur Karim du xuloo moom mun taam fan yi nag dafa gis ma ànd ak dal ndax xëy na tuuti rek yaram bee xaw a naaxal tuuti waaye yàlla baax na yàlla baax na eh bien lépp normal na bu ñu sañoon nag may tawat ndax li may wax nii sax fii la yem yéen a may dégg waaye dinaa leen woon cawarte bien bu nekk ci man boo xam ne di ngeen xam ne madame la Wade ku jar a jàppale la. góor gi moo bari doole. aywa waaw. góor gi. mbagg yi moo bari doole. waaw. góor gi góor gi góor gi góor gi góor gi góor gi baax na baax na li ma bëggee bien ngeen xam ko mooy man fu mu toll nii mooy Macky Sall na bàyyi sama doom. bu ko bàyyiwul eh bien am na loo xam ne maa ngi koy waxtaan ak ñi war a waxtaanal. te olof am na lu wax nee na doom bàyyam da koo jege bu koy naxtaan da koy xool. loolu nga xam ne eh bien moo ma loolu rek moo ma tere dem gis sama doom ndax bu ma ko na sama xol moo dul antenne waaye du ñàkk communication ndax xam ngeen ne kaso ba munoo nekk di téléphoné mun na daan mhm. nit ñi laa yóbbante mais eh loolu mhm. journaliste bu ñu ko waxee c'est pour interpréter eh bien des informations malsaines mhm. hmm? yéeme na trop. yéen a ngi dégg. nous préparons nous. doy na doy na doy na doy na li ma bëggee bien ngeen xam ko mooy xam ngeen ne situation dëkk bi musul mel ni dëkk bi musul mel ni dëkk bi musul mel ni jaaykatu journaux yëpp dañ naan ma Ablaye Wade ñoom patron de presse yi bu dul man actualité bi du neex dañu wax maay wax eh bien wax maay maay cokkaas maay yëngal maay def lépp ñuy bind di jaay muy jar kon man la coole coole ma dikke mi eh bien dama ko waxoon na ko yóbbu ndar su ma ko yóbbee ndar et eh bien mu ànd ak ñoom euh, euh, Baraya. su ko defee Ahmed Fall Baraya nga xam ne ñoom maître Mati maître Fatima Fall nga xam ne jigéenu euh, jàmbaar la et eh bien ñooñu bu ñu defee seen collectif. Mm-hmm. taxaw nga jiite leen nekk Ablaye Wade dama bëgg ay Ablaye Wade Ndéné Ndiaye ak ma ne Souleymane Ndéné Ndiaye nekk Ablaye Wade bu gën gi neew Madické Niang nekk Ablaye Wade bu Ndar et bien Farba Senghor nekk Ablaye Wade bu Dakar kenn ku nekk nga nekk ci région bi Ablaye Wade na ngeen tëj ci kaso yi laa bëgg tous les responsables aux prisons tous les responsables bu mu nee tëj tu vas faire une le gouvernement et ci kaso yi ne ko góor gi nag nañu waxante dëgg waaye attaqué moom wax dëgg ñu seetaat la. waaw yooyu teggu wax nag waaye waxtaan nag ci la lépp xaj ndax am murit xam nga ni. ñoo xam waaw ma dikkee dama lay laaj yow mais tu peux pas être munoo nekk suma ambassadeur ah, ah boobu ba léegi nag yaa ngi wax attaqué ndax gouvernement am attaqué xam nga liif dafa garaaw te ñoom amuñ ci kersay kenn te du waxtaan wax dëgg ca la bokk déggal naa la lool nag waaye barki sëriñ Saaliw euh, liif nag moom lu jar a moytul ndax attaqué tee noo waxtaan rek tee ñoo